tey kontaan trop ci ñëw buñ fi ñëw waxoon naa ko si sama ubbite ne yow gan bu am solo nga di arab naan uh, insaanun kabir moom insaanun kabir <laughs> <laughs> uh, di nit ku baax ma kontaan na ci discours am parce que il a un discours reconnaissant modeste parce que lii sëñ Abdoul Ahad Mbacké waxoon Senghor bi mu koy tàggu da ko ne bul la Sénégalais yi waree sant benn yow war nga leen sant fukk waaye président Ousmane Sonko bu la Sénégalais yi waree sant benn war nga deen sant fukk parce que ay coow jaaroon na fi yoo xam ne ci ay noon la jóge woon bul woon Sénégalais yi dara du ko jar noon bu saay-saay te bari doole yàlla nu ci yàlla musal Euh, waaye alhamdulilah man de waxoon naa la sa biir saal ne la danañ gisawaat dem ak yow te dara du xew loolu de loolu la ko alhamdulilah tey loolu moo am euh, li ma ci kontaan loon nag du loolu wante ngay sama nit parce que doon gonoon sama nit nga xam ko nga ñàkk sa xoo xam indi moo ma indi sa kër ma ànd ak yow feeñ ànd ak yow jël position bu gàcc amoon ci sama kaw lay dal ba noppi waaye nag dañu am deux décisions extrêmement importantes dañu am deux décisions de la justice benn bi décision de la justice bi ci des ma mën ko tuddee décision morale bu am solo boo xam ne moom a sagal ba ci njëkk c'est la décision du peuple sénégalais bi nga xam ne ci turam la ñuy rendre justice yow peuple lu moo la blanchir ci lépp dégg naa ñu ne ñi doon génn ay terroriste la mais kon Sénégal yëpp ay terroriste la treize raisons sur quatorze génn nañ lànk lool kon je pense que justice amatul amatul regard ci loolu waaye nag loolu justice la mu des moral te kenn moomul xelu kenn waaye nag ku ne gëm na ne sëñ Muntaxa du wax ci lu dul yàlla billaahi liñ doon wax su doon dëgg sëñ Muntaxa du ci dugg du ne nañ la bàyyi de te moo ne nañ ko teg ci suuf te bu doon dëgg su ne dañ ko bu doon nañ ko teg ci suuf tooñ te ku nekk sëñ Tuubaa ci suuf du tooñ kon je pense que ce dossier est clos il est derrière nous j'invite mes amis journalistes chercheur toujours de l'information matin midi soir waaye waay waay loolu weesu nañ ko c'est fini bii peuple bi ñoo rendre décision bii bii sëriñ bi moo rendre décision bii bii moo nekkoon justice parce que justice yi ñu koy rendre au nom du peuple sénégalais bii mooy moral sëriñ bi fi nekk sëñ Touba nee na nañ ko tekki suuf waay waay loolu jeex na waay ku ci waxaat nag wala nga ciy seetaat sëñ bi nga amal affaire te doo ci am ndam den ku ciy waxaat nag man de waxtuma ci ba sëñ bi nañ ko teg ci suuf booba laa ko teg ci suuf te xam ne kon sama waa ji tooñut alhamdulilah bi ci toppaat na nga gërëmaat Sénégalais yi te nga yëg leen comme nii te nga moytu ay fokon Abdoulaye Wade ay fokon ko sànq Macky sàll ay fokon ko sànq yàlla bu lay fokon sànq fokon yi mooy ñu naan non kii day lambar lambari loolu waxu faucon la mm-hmm. kii dafa amal remerciement sénégalais yëpp kenn ku ne ku ci mën a dem këram rek mu dem fa mm-hmm. tey nag jàkkaarloog noonu bu doy waar boo xam ne it bàyyiwul de mais dafa néew doole agresseur nag boo ko jekkoo wuu il ne faut pas arrêter monsieur le président allez voir tout le monde il faut en débrasser mm-hmm. mooy sama discours de dafa amoon benn paa ndeysaan bu jóge si jàkk ji agresseur bi kar ko génne paaka paa bi liwaayu ko liwaay bu ne agresseur bi ne ko non papa yow tey mooy si dernier comme paa bi ancien mbër la woon paa bi yàlla def mu fàttaliku loolu séq ak moom ñu bokk daanu paaka bi wadd mu for ko agresseur bi ne ko ay waay góor gi teg maa dimbali mu ne ko yow kay damaa defoon ne doom yaa ma kii waaye comme maa la kii wuu c'est fini waaye dañu def woon ni kii diw moonu kii waaye comme peuple bi ko kii non c'est fini man de loolu mooy sama position na jeex j'aime bien nag la personnalité di président Sonko ak maturité le fait que mu ne nañ teg ci suuf parce que am na noo xam ne bu ñu demee ci beneen situation lay doon loolu wane ne du nit ku yàkkamti wane ne aussi ku bëgg Sénégal la wane ne aussi intérêt moom tax koo jóg wane ne aussi ne quelque que soit nu mën a xeexee noon bi mi ngi ciy demee mesure ak patriotisme c'est extrêmement important mais continuer nga seet nit ñi ku mu nekk fu mu mën a nekk demal fekk ko fa te nag bu ma accepter mukk ab protocole fu Sénégal di mu rek protocole ko fa tey protocole 2 bëgguma ay nañ nangu su demee parce que après ñu ne ko duñ la topp mu nangoo dem déedéet bu ko nangu protocole waru fi am doy na sëkk protocole dil la daa war a dem fii sa durée jeex doo dem mais loo fiy defati ban neexal parce que duñ la topp ma ne hey dangay dem waaye force da dem te day dem de voilà le bon discours donc kon loolu laa bëggoon wax ma jeexalaat daal ci gërëm la continue di la jàppale même boo ñëwul woon fii tamit continue di la jàppale parce que gëm naa ne jàppale la jàppale dëgg la waaye na nga xeexaat aussi encore une fois et une fois encore pour que les élections se tiennent à l'heure y a un grand piège gis nga bu ñu fi waxee élection février deux mille vingt deux locale législative du nekk jamais juin deux mille vingt deux te bu législative nekkul juin deux mille vingt deux présidentielle du nekk moo tax peuple bi seeti leen de te ñaari baat ñett nañ daje place de l'Obélisque loolu lay bañ ab tàppet place de l'Obélisque lay bañ man de suis disponible donc loolu laa bëgg a wax ma gërëm la gërëm soxna yi nga àndal gërëm ñi ci des ñëpp wa axiru daawana alhamdulillahi rabbil alamin waaw mbokk yi yéen a ko yéen a ko gisandoo euh, gannaaw bi nga xam ne defee nañ euh, seen ñaari discours moom président Ousmane Sonko.